ati ci seen ànd ak télévision Futur Média dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi euh, ponk yi ca gën a fës bokk na ci euh, xale bu góor boobu ñu doon dañ koo tere booy xool daanaka lu jëm ci wàllu dem ak euh, dikk asalaamaaleykum mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nekk tey jii mbégte bi nga xam ni saa su ne communauté mouride dañ koy amee jéeme ko ci li nga xam ni mun nañ ne moo di célébrer saa su ne ngir wooteeg sëñ Tuubaa gu tëdd gi waaye nag ci loolee mun nañ ne tey jii Sénégal daal dina ñàkk ak doom ñaari doomam mu nekk doom yi nga xam ni ku daal ñu daal di fës bu baax a baax ci wàllum média lañ noonu sax tax na jamono guñ toll yi moom fiofa ci faro ca TFM daal di wuye turu Fatou Kiné Dème ak ki nga xam ni moo di Jean Paul Dalméda nekk moom mi nga xam ni jeu kat théâtre la bari lu bëri li nga xam ni daanaka daanaka

bu baax a baax jëmee ko ci seen famille jëmee ko ci li nga xam ni tey jii moo di askanu aar was rawat na askanu yi nga xam ne ñoo di askanu public waaye nag la saa su ne dañ leen di ñaanal di leen wax ni a yàlla na leen yàlla xare aljana ci barke Seexul Xadim ci barke li nga xam ne tey jii moo di bis bu tedd bi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa